tënk ñun ñoo gis ni am na lu leerul suñu bopp ñu def lu audit porte plainte toog di déglu justice te incha allah justice dina ko leeral ci wàllu ticket restaurant yi wante nag ku bëgg a jaxase xelu nit ñi yaay di bind di wax way ah ticket yi kat ba ñu waxee nii def nañ ko ba léegi xëy na dafa am ñu ñuy proté au début dañ doon bëgg sax gëmloo ni directeur bi si la bokk bañ demee ba mu leer seen bopp ñu ne xëy na dafa am ñu mu bëgg a protéger moo tax leeralagu ko mais justice nag moom mooy leeral loolu lan moo ci am montant yi ñuy avancé nag xëy na dañoo am xam-xam xam ñaata la waaye man mi ñun ñu nekk ci au cœur xamuñu xamaguñu montant bi fu mu toll wante li wér wóor mooy eggul ci montant yi nga xamante ni ñu ngi koy avancé ñu ni it am na benn nit ci biir IPRES boo xamante ni am na benn détournement bu mu def maanaam fexe ba monter benn dossier xaalis ba ca génn au lieu mu jëm ci nit wala boo na am na ku mu kompalool mu dem si moom ñu séddoo ko kooku it bañ ko xamee dañoo daal di porter plainte devant la justice l'affaire est en est en cours su dul woon secret d'instruction bi dinaa wax fan lañ ci fan lañ ci toll waaye nag am nañu ni c'est parce que ah amuñu un système bu baax moo tax loolu di am mais bu non c'est-à-dire système bu bon mooy loolu am te doo ko détecté système bu bon mooy loolu am te doo jàpp na ko ña ko def mais le système nous a permis ci biir ñu xam ni mbir am na ñu arrêté ko bu dee wàllu ticket yi kenn defatul ay ticket parce que ticket yi dañ koy fraude di ko changer di ko scanner di def lu ne ñu ne léegi am nañu ay jumtukaay yu bees nañ leen yóbbu ñoom ñëpp ci transfert d'argent boo xam weer bu dee lañ la daan jox ci wàllu ticket di la ko jox ñu defal la ko sa téléphone foo xam nga dem lekkee ji fa loolu mi ngi am boobu léegi jàmm nee na nee na ñooy te loolu it mesure boo xamante ni dañ ko daal di jël immédiatement la kon wàllu ticket yi ak détournement yi loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo ci moom moo euh, moom mooy li ci am si recrutement abusif la ñu wax IPRES nag dafa nekk kër goo xam ni dafa dafa particulier ndaxte xëy na bu ñu nee directeur général feneen moom rek moom moo am pouvoir u recruter mais si suñ kër gii di IPRES texte yi dafa prévoir ci statut yi ni directeur général day proposer au bureau du conseil à travers son président tout lépp luy recrutement wala licenciement sauf bu nekkee une faute lourde nga xam ne mën nga jël mesure bi après nga rendre compte dans les faits ci biir euh, ci biir IPRES d'ailleurs le directeur des ressources humaines président bi day am accès directement ci moom di ko jox ay dossier de recrutement mu indil ko le directeur général mais ku yokk juróom-benni agence foo amoon fukk ñi nekkoon ci siège bi ñu yóbbu leen point fu gën a yaatu utaat benn centre médico social ah yooyu yëpp nag bu ko ubbee def naa il faut am nit yu ñu fa dugal nit yooyu ñu fay jugal du directeur général mooy toog nii temps laa fay def bu ñu def budget li ñu suñu service yi laaj dina weesu foofu li ñuy autoriser après mais sànq avant may ñëw maa ngi amusé wu ma xayma li ñu autorisé entre 2014 bi ma fi nekkee ak 2019 ba fii may wax ak yéen am na gabu 53 agents cest maanaam ci li ñu autorisé am na gabu 53 boo xamante nii jëlaguñu ko. mais dans la gestion rationnelle des effectifs da koy def au fur et à dafa am nag ay mots yoo xam ni recrutement pléthorique gabégique dafa bokk ci vocabulaire yi ñuy chargé un directeur général wala ku nekk ci ci pouvoir mais lii mooy dëgg bi jàpp ni tey jii liñ ñu autorisé diggante 2014 ak 2019 ba jamono yi may wax ak yéen am na gabu 53 yoo xamante ni tey suñ ko recruter woon du point de vue nombre kenn nekkul en en faute wax naa du ma def dans la langue de bois parce que dañu wax ni waaw waaye waa daf dañu recruter foofu waa doomi doomi Tivaouane waa léegi c'est parce que directeur général bi Tivaouane la dëkk que doomu Tivaouane yi kenn du leen jox seen chance di nga fa fekk waa Tivaouane di fa fekk waa Kaolack di nga fa fekk waa Dakar di fa fekk di fa fekk waa Sénégal yépp te wax dëgg yàlla nag doon naa am yarange bu mat sëkk ma nekk directeur général fenn def fa juróomi at ak genn wàll fi mu toll nii ñu ni benn doomu Tivaouane liggéeyu ko autant yeneen yi dañ faa war a liggéey doomu Tivaouane tamit dañ fay dañ fay liggéey waaye nit nag su bëggee yàq nu ne rek lay aborder question kon loolu moom tey jii nag bu ñu woon dañ laa autorisé vingt def nga cent ah ma xam ne def naa faute te loolu nee naa leen dama ko séq parce que loolu la IPRES di doxe suñu diggante ak le président du conseil d' administration nag sama posture euh, d' administrateur mayuma mooy dugg ci yenn détails yi am na ñu ni day def lu ko neex gannaaw bi ngeen gisee ni loolu amul ndax wax nañ dëgg-dëgg li xew que ni le couple présidentiel ñoo ko ñoo ko ne ah wax jooju daf muy indi may wax ci sama bopp te lu ma tàmm di def wante nag yàlla suturaal nañu ñu jàng fa ñu war a jànge nekk administrateur civil depuis 2002 maanaam fukki at ak juróom-ñaar ca gannaaw ba ñu duggee ENAM ak tey toll na ci fukki at ak juróom-ñeent sama collègue yëpp ñii tey ay administrateur civil bu dee biir commandement territorial ñii ay gouverneur lañu. ñi nga xam ne sax maa leen jiir commandement bari na ñoo xam ne tey gouverneur lañu yàlla defit ñu am jaar-jaar nekk adjoint gouverneur ca Fatick nekk ko ci Dakar pendant quatre ans nekk préfet ca Vélingara sama waa dëkk boobu ma leen nuyu bu baax yàlla def ma jóge foofu en 2012 bi alternance bi di am mi ngi fekk ma nekk directeur de cabinet du ministre d'État ministre de la famille kon tey même bu fekkoon ni président de la république moo yoroon mbiru IPRES nommé ma fa jëlul ku amul profil bi mu teg ko fa mais en réalité en réalité dëgg-dëgg ñiy tudd président ci mbir mi mooy ñi bëgg a jaxase xale nit ñi maanaam man directeur général IPRES kenn nommé wu par décret du président de la république kenn nommé wu ma par arrêté du ministre loolu ngeen di dégg ñu koy wax autonomie de gestion moo waral ba conseil d'administration ñoom ñoo may nome te tey jii bu fekkoon te nii gis nañ ni nañ ma dénkoon mënuma ko yoon may na leen ñoom it ñu dajewaat dindi ma kon dama gis ni kuy mele turu président de la république ci lii nga xam ni yoon nam nekku ci maanaam moom du nome du dindi mm-hmm. ñu ne waare waaye ngóor safa ne dafay def lu ko neex ndax président moo ko protégé déedéet ñu ngi koy tooñ mais dama yaakaar ni nag ñiy wax loolu jëme ko ci président ay nit yu ko bëgg yàqal lañ ndax jamono yi waru woon a toll ci jamono yi di wax IPRES en mal def naa li ngeen fi dégg yëpp wane na ni tey dañu waroon a toll ci jamono di féliciter le management de l'IPRES muy conseil d'administration muy la direction générale parce que man jàpp mën dañu war a wax ni lii kii ko diw diwoo ko def lii diwoo ko def mais IPRES de manière générale ñu ngi def ay progrès yoo xamante nii tangible na à la traité yi ñu ngi koy ñu ngi koy yëg bu baax a baax kon ku wax leneen rek defe naa ni bëgg nga indi jaxase xelu nit ñi ci loo xamante ni nii yoonu président encore moins soxnaam nekku ci conseil d'administration bi ay nit yu respectable ñoo fa nekk ay nit yoo xamante ni nii ñu am lu ñu représenté ci ci Sénégal parce que conseil bi ñi ko constitué mooy la CNTS l'UNSAS CSA CNTS FC ci wàllu travailleurs yi CNP ak CNES ci wàllu patronat état bi ministère du travail di assurer tutelle bi ministère des finances di assurer di assurer la tutelle tutelle euh, technique ñoom ministère du travail ministère des finances di assurer la tutelle euh, financière premier ministre am fa ku ko fa mais également euh, le ministre de la fonction publique à travers le directeur général de la fonction publique ñoo fa ne te ña fa ne nekkul les second couteaux maanaam jëluñu nimporti qui teg ko fa responsable ñoom ñoo fa nekk est-ce que ñooñu tey jii sax euh, rafet na ñuy wax ni ñooñu dañ leen fa teg di leen manipuler parce que ka fa nekk nangam ak nangam président de la république nañ ko may am na leneen lu ko doy ci wàllu liggéey naam IPRES soxal na ko waaye nag autonomie de gestion bi moom defe naa ni dañ ko daf leen ko bàyyeel ba mu mat sëkk kon bu ko kenn dugal ci ni moom mooy protéger diw war diw te diw moomu wane na ni liggéey bi ak ñi ko àndal yàlla mi ngi leen ciy defal sutura ñu ciy am ay résultat yu yu baax a baax crise bi dama wax crise artificielle la coow lu bari muy dem di dem ba jëmi jamono am ñu taxaw bind ni guerre la diggante directeur général bi ak président du conseil d'administration bi nit ñi bind ko wax ko a ah, man nag dama nekk nit koo xam ni ni ma bañee di wax fu ne woo ñëpp ñu dajee ma wax li ma war a wax noonu laay fonctionné ci registre boobu maa ngi excusé wu d'avance ñi nga xamante ni nii xëy na xamuñu woon ni dinaa yegg ci foofu waaye nag mbir bu xewee te xëy na ñun toog fii sax di wax ci lu mel nii gënaluñu waaye dem nañ ba yegg ci li ñu daan wax ba ñu nekkee xale ci kuskondrom ñun la bëgg bëre bañ bëre dañoo dem ba daanaka foofu la ñu foofu la ñu bi loolu amee man de dama ni ah ki ñu ma wax ni day moo de moo nekk ci lii yàlla boole nañu juróom-ñaari at ndax depuis caisse de sécurité sociale ak tey duma ma toog di njort sama xel moom la wala du moom dama jóg sol sama daal dem seeti ko ci bureau ni ko dama dégg kat ñu ni lii nga xamante nii mu ngi am yow am na loo ci doon xëy na dina leen bett waaye réponse bi ma jot mais monsieur le directeur général je vais bien damay quitter bientôt waaye yow it il faut nga quitter c'est la réponse bi nga xamante nii moom laa jot ci dal ma laaj ko ni ko monsieur président lan moo tax mu ni ma benn sama mandat bi ñuy wax ni jeex na ci presse bi naa ni yow ak benn syndicaliste bu mag ci dëkk bi yéen a dem ci presque bi wax ko pour renouvellement yi beneen bi mooy ci entourage président de la république wax nañ ma ni yaa ngi jéem a liggéey pour que autonomie de gestion bu IPRES bi ñu dindi ko ak lan ma lool rek moom lañ lay reproché ma ni nag ah bu fekkee loolu la nag weddi naa ko ba mu set benn ñaar directeur général IPRES boo nee danga war a dem da naan ko parce que nekkoo njariñ ci retraité yi waaye parce que man jàpp naa ni li nga def def nga loo xamante ni jëme nga ko ci man da nga fay jóge jàpp naa ni nekkul loo xamante ni nii lu war a tax ma jóge fa la li may wax nii yëpp nag manœuvrer wu ma pour rester su waat daga doon fii dinaa ko waat wax ni bu fekkonte nii sama post rek moom ma intéressé ci lii du ma def conférence de presse parce que fañ koy joxee di ko dindi conseil d'administration la ñooñu laa ameel jàkkaarloo ak ñoom ñu wax ma ma dindi waaye mbir mi nag dafa dem ba génn mbiru IPRES parce que mbir bu ñu demee ba waxatuñu rek yam ci liggéey bi di ci tudd ba ciy tudd sa soxna di ci tudd ba ciy tudd leneen mooy kenn nag leneen tax na moo leen tax a jóg lu dul rek yéwénal liggéey bi nga xamante ni ñi ngi koy def ci biir ci biir IPRES man ne nag dans ces conditions c'est vrai mën nañu wax ni histoire mooy ñëwaat ndax bari na ay directeurs yu jaar IPRES bu jaree bés ñu dellu si dinañ si dellu si wala caisse de sécurité social nii la demee woon ba ñu jóge fa man nag pare naa jàkkaarloo ak conseil bi pour que lu fekkee am na lu ñuy reproché ñu reproché ñu ko lu ñu ci war a wax ñu wax ñu ko suñ fa waree des dañ fay des gëm nañ ni yàlla àpp bi mu ñu natal gis nga nit moom la ñuy jóge IPRES duñ ko weesu une seconde bu jotee dinañ génn mais nag dañoo nekk ci àdduna nekk ci àdduna di dund ci àdduna man de nanguwuma nanguwuma euh, benn nit rek taxaw ni la demal nga ne lu tax ñu wax la loo xamante ni nii dalul sa xel nga nga ni damay dem bu boobaa sax mooy nangu liñ la jiiñ suñ demee ci biir loolu nit ki la damaa bëgg nga dem am ay nit taxaw ni la demal da war a dem ah xel nag dina naaj dina dina naaj seet ba xam ñiy wax lan la xëy na bu njëkk nit ñi lañ daan bind ci journaux yi rek des retraités le syndicat et cetera waaye toog nañ temps yële ay mag ñu nag mag moom li ñu ci jàngal mooy xormal jox respect wax wax ju jub jëme ci moom taxaw dajaloo ni directeur général IPRES ñun retraité Sénégal yi daje nañu si Thiès def assemblée générale nationale waa région yi yëpp ñëw nañ waaye parce que moom ca Genève dafa jël avion fekk ministre du travail ni ko ci ordre du jour si presse bi dañoo bëgg nga def ci loo xam ni day tax IPRES dootul am autonomie comme moom nag bi ngi jéem loolu ñun na dem mani ni fi may tàmbalee mag moo daan yedd gone de waaye nag ñooñu tey jii dinaa leen wax ni li ñuy xaar ci mag bu sage bu am xikma bu am sages mooy lu mel nii su taxawee nga jóg seeti parti yépp fexe ba jàmm dellusi si waaye duñu la xaar yow mag nga jóg rek ni ah yaakaar naa ni ñaar ñii daal dañoo am problème kon taxaw naa pour am ku ma ci ku ma ciy faral mais li gën a garaaw ci mbir mi mooy retraité Sénégal yi ak pension ak kii dañoo toll si cent quarante mille ñaar fukk ak nàngamu retraité yooyu nekkoon Thiès ah ñooñu man ñëpp xam naa leen parce que fréquenté naa leen fréquenté nañ ma tey jii ñoom ñëpp dañoo nekk membre ci benn association politique boo xam ne suñ président moo ko moo ko jiite donc ñooñu mënuñoo daje ni wax nañ ci turu Sénégal foofu sa Genève ordre du jour boobu du sax foofu lañ koy tërale ordre du jour bi li ñuy wax conseil des ministres de la CIPRES ñooy dajaloo ay weer ca gannaaw ay weer avant pour tëral ordre du jour boobu man mi nga xam ni dëgg la expert la ci CIPRES au même titre que yeneen directeurs généraux yi amuma benn sañ-sañ wala benn pouvoiru dem di changer ordu du jour kon jàpp naa ni lañ doon wax ñàkk xam ak aussi ñu abuser leen nax leen wax leen loo xamante ni amul moo tax ñu tërale ko noonu waaye nag lii may wax comme ñoom ministre du travail la ñu wax ni ci moom la loolu amee yaakaar naa bu ñu laajee pour gis ko mu recevoir leen dina leen leeralal mbir moomu pas pour ñu jël position pour changer ndax wax naa leen ni ñun ci yàlla la ñu wakiilu te xam nañu suñu biir IPRES fii bis bu ñu fi jeexalee dañuy daal di dem defi suñu mission feneen comme ni ñu ko doon defee gan avant ñuy egsi ci biir ci biir IPRES. def naa léegi nag li ñu war a posé wu question mooy waaw li fi DG bi wax yëpp moom ñu nommé ko ak ñu dindi ko ajeewul muy dem ba ci président de la république ña ko nommé woon ñooy dajaloo rek ni ko lii daal doyatooñu ndax nangam décision nag da koy motiver. nangam bii nga def wala lii nga def kon il faut nga dem lu war a loolu mooy que ni amul tey si le plan de la gestion loo xamante ni mën nañ ko teg suñu der amul su amoon du am 10 minutes te wootewuñu wuñu ni def na lii kon nañ ko fi jëlee te bu boobaa it bu fekkee maa ko def en âme et conscience dinaa xam ne dama faa war a jóge ma ma jóge kon li ma bëgg ma jàpp ko ñu jàpp ko tey mooy IPRES bi ñu leen di wax ci presse bi ngeen koy dégg wute na ak IPRES bi nga xamante ni tey jii moom la ñuy dund muy IPRES boo xam ni gannaaw bi ñu rendre hommage ñi ko créé bi ñu rendre hommage ña fa jiitu di liggéey am fu ñu ko jëlee am fu ñu ko yóbbu IPRES boobu ku waxal yàlla ak li ma fi wax léegi xam ni ci juróomi at yi passé dina jafe dina jafe beneen équipe muy conseil d'administration missage directeur général ñëw def parce am na défi yoo xam ne benn yoon ci ci ci dund lay présenté wu défi yooyu si ñun la tombe yàlla def na relevé nañ ko yàlla ñuy dimbali weer bu dee li ñuy nattal retraité yi di leen ko fay weer laa wax waxuma at mi ngi toll ci sept juróom-ñaar ba juróom-ñetti milliards par weer yoo xam ne war nañ ko recouvrer delloowaat ko ci gafakay retraité yi ñu fi ñëwee ba suñu jóol yàlla tey yàlla mi ngi ñu ciy dimbali daaw ci at mi fay nañu lu toll ci téeméer ak fukk ak ñeent ci ay milliards parce que da ciy boole avance tabaski weer wala passé vingt et un milliards la ñu génneendoo quatorze milliards quatorze milliards la ñu génneendoo fay retraités yi boole ci seen avance tabaski vingt et un jours après ñu génnewaat sept milliards fay waaw kër gu doxul ndax mën nañ ci weer nga génne quatorze milliards vingt 21 jour nga génnewaat 7 wala 8 milliards te kase benn benn dayaate mënul nekk kon IPRES bi ñu leen di wax ak ña doon wax naan bu décembre jotee doon leen fay ute na ak IPRES bi nga xamante nii moom mooy exister dëgg-dëgg man nag ah comme ni ma ko waxee yàlla moom lu mu ni tey day am day am tey. bu conseil d'administration bi daje woon ni def na fut nangam ak nangam daa war a dem bu boobaa lañ lay reproché ñu wax la ko nga wax ci la nga ci war a wax malgré tout ñu ni day dem bu boobaa ñu dem waaye nag demal ndax man benn nit damaa bëgg nga dem man Diagne Sy Mbengue nanguwuma boobu ñu ngi toog di xaar yàlla di continuer suñu liggéey ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.